asalaamaaleykum sunu mbokki internet na nga xam ne yéen a ngi ànd ñu ci SBT Média tey na ñu ngi fii ci Grand Médine seet si beneen daanaan muy Souli Dëgg teewal dëgg Souli ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay di fay askanu senegal di fay SBT Média askanu Sénégal bi yëpp. Ah. di ziar askanu yëpp comme dégg ngeen ko ni mu nuyoo muy Souli Dëgg la turu Souli Dëgg ak teewal dëgg mooy lan. Souli Dëgg muy maanaam mooy dëgg bi suulu ñuy fexe ba mu suleeku teewal dëgg mooy actualité bi nga xamante ni lépp lu nekk si ay nar ñu teewal ko mu doon dëgg. loolu mooy moo andi suli dëgg ak teewal dëgg tey suli dëgg lan la bëgg a sulil. waaw li ñu bëgg a mooy gis nañ senegal ni muy demee. nit ñi di wax ci waxu benn épidémie bu ndaw bu ñuy wax Covid 19 ñi naan ko coronavirus kooku dëgg la am na lëmbe na askanu àdduna mais dañoo war a xam ni Afrique ñoom li seen xel ak seen jëmuwaay warul doon lépp lépp si corona 19 Covid 19. coronavirus Covid 19 ndaxte booy xool am nañ benn épidémie bu gën a garaaw coronavirus mooy lan palu paludisme ñaata nit lay rey ci Afrique par jour te ba tey mënaguñu ci jug tubaab bien vrai xamul lan mooy palu te ñun nag ñoom bokkuñu léegi dafa dem ba mujj gi coronavirus mujj na nekk genre benn système de politique. ma gis suñu nguur gi nee nañ ñoom dañuy joxe ay edd alimentaire askan bi yëpp di ko gis ñii di bindu ñii di dem aide alimentaire si dëkk lan moo ko war indi ba pare mooy dëkk bi nga xamante ni am na guerre xeex dañu miine fa ay bomb teg fa ay lu ne ba nga xamante ni ñi bu ñu génnee mën nañ exploser seen kaw wala dëkk bi xeex bi guerre bi daal bi maanaam guerre bi dugg na fa ba rey population bi rey seen gàncax amatuñu lu ñu lekk ñooñu la ñu war a yóbbul aide alimentaire te aide alimentaire bu koy wax du ceeb ceeb dèjà baaxul si nit lan moo dugal ceeb Sénégal est ce que xa laajte ngeen loolu ba pare ndaxte ñun dañoo nekkoon benn pays boo xamante ni amaguñu woon colonisé guñu woon mooy xool ay 1934 après deuxième guerre mondiale bi ñu ngi woon si loxo français yi français yi dem ba xam ni mënuñu dundal askanu Sénégal. dugub bi demoon ba benn moment gàncax bi jugul woon léegi si la ñu commandé ceeb ndaxte ceeb boo ko lekkee tuuti rek mu gaaw a feesal sa biir système booboo tax français yi dugaloon ko biir Sénégal ñu koy dundee ba far tàmm ko kon tey bu ñu demoon ba naan edd waroon nañ mën a xool beneen solution boo xam ne du doon ay jël ceeb jël lii di ko jox askan wi ndaxte ceeb bien vrai am na solo mais mën naam am man du ma ko lekk mën naa am dugub ma gënal ceeb tey bu ñu naan aide dañoo waroon def aide population mooy lan gouvernement bi xam na ñaata nit moo nekk ci Sénégal ñaata citoyen Sénégal gi sénégalais ñoo fi nekk xam nañ tamit bu ñu leen bëggee aider nan moo gën ci ñoom ndaxte tey bu ñu demoon ba war a voter xam nañ ñan ñoo mën a voter kon xam nañ ñan ñoo fi majeur au lieu que ñuy jël ay ceeb ay dëwliñ di sonal nit ñi di leen yokkaat feebar di leen ko jox moom nañ ko jël xaalis jox leen ko kenn ku nekk képp ku am 18 ans majeur ñu yónnee la ko par Orange Money par. wari xam nga par yeneen système ndaxte booy continuer di tudd dafay mel ni da nga leen di publicité te lan ba sax mooy Orange Money Orange Money système mu français la ñu ko fi indi français kon ñun nee nañ on est on est pays indépendance mais nou sommes toujours dépendant ndaxte li français yi def moom la ñuy copier coller ko mais nag tey dañoo tollu Afrique fa nga xamante ni suñu njiit yi dafa am lu ñu dul xalaat. mooy bu ñu complot gouver président France président France boobu ñu complot ba tax ñuy jaay seen askan président France boobu pour France ñaari mandat la fay am te bu demee fàtte na suñu njit kat mooy des beneen président way ñëw est-ce que kooku dina mën a lëkkaloo ak suñu njit comme ni kenn lëkkaloo woon ak moom loolu mënul nekk. su ma la déggee da nga jàpp ne euh, njiitum réew mi dafa la lëkkaloog président bu France. dama ne réew mi dafa lëkkaloog président France mais dama ne système bi ñuy doxalee si dëkk bi. système boobu moo c'est est toujours système français parce boo xoolee tey euh, coronavirus bi dafa lëmbee àdduna bi te ñëpp fi doon benn xeex la am benn combat la muy na fi coronavirus bi jógee donc loolu moo tax ñu jël yenn mesures de sécurité yi ak yu te àdduna wërngal euh, noonu di ñaan yàlla suñu borom yëkkati fi mais tey feebar la boo xam se ni lëmb na réew mi comme ni ko gisee est ce que nekkul ne système boobu la parce que lu baaxee dañ koy copier tey boo xoolee Sénégal tey bokk na a jàmbaar gis nga ñu ngi koy fajee macha allah suñu médecins yi di di féliciter ministre euh, de l' intérieur ak ministre de la santé muy Abdoulaye Diouf Sarr ci liggéey bu rafet bi nga xam ñu ngi koy am yow nga ne gisee woo noonu. man du féliciter benn ministre xamul tax ñoom seen devoir dañ ko wax def si askan bi ndaxte askan gee leen fal buñ ko fàtte te ñoom li ñu. bu dee góor góor nga ne waaw góor yàqu ci dara. waaw waaw góor yàqul dara mais tey feebar bi ñuy wax Covid 19 pal bi kon lu tax suñu hôpital yi jógaguñu si affaire paludisme te tey tamit boo xoolee lan lañu wax na nga raxasu na set bul tefale si mbedd buy sànni loolu yëpp ñu ngi ko jëlee si si alxuraan ak biibul ndaxte alxuraan ak biibul ñoo njëkk a digle set mais tey France c'est pas un pays musulman waruñu mën a tëj seen i jàkk seen i juma ñun Sénégal dañoo tëj suñu jàkk suñu juma te 4 avril ba mu amee défilé dañoo ubbi palais am ña fa nekk mbobo défilé foofu def seen i affaire Youssou Ndour waykat tëgg na ay soirée almadi jog nit ñi te nee nañ dañuy bañ a pour pourquoi pas ñu jël jumaa yi ubbi ko teg fa ñaari policier ñett ku ñëw ñu jox la saabu nga raxasu sal masque dem julli jaamu yàlla ndaxte dëkkkat bu jaaxlee fi muy delluwaat lépp mooy si jaamu yàlla ndaxte set yàllaa ko njëkk a digle te kon bu ñu toppoon waxu yàlla musulman bi topp al kaamilam chrétien bi topp bible am kon set googu dañ koy appliquer ndaxte la ñu ñëw alxuraan bindal loolu ñu biibul bindal benn différence bu ndaw la ñu am mooy si waxu yenent bi ndaxte ñii dañoo gëm Jésus ñii gëm ñëpp loolooy suñu différence kon ñun amul lenn lu ñu copier waat liy doon dëgg yàlla bind ko ñu ko doon bañ loolu la ñu indiwaat tey yow ni nga xam si ni aide alimentaire bi ni nga xam ne moom lañ ko moom lañ koy doxalee yow gisoo si sa bopp. non gisuma si sama bopp ndaxte système de politique daf si nekk ndaxte aide alimentaire nee naa la ba tey bëgguma ko dégg ndaxte suñu dëkk tollagul fu ñuy joxee aide alimentaire aide alimentaire.

ndox du fa coupé ba pare jël seen population yónnee leen ku nekk xaalis ñi doon fay luyaas du ñu fay luyaas teg ñi daan liggéeyi duñ si dàq kenn kenn amul droit dàq benn liggéeykat. mesures yooyu président jël na ko si askanu Sénégal. non gisuma benn bu mu jël ndaxte ñun liñ ñu jox ay ceeb ak diwlin dañu gën a yokk feebar tey président bu doon day jël mesure danaan ne ñëpp toog fexe ba wax ak waa SDE ndox du coupé si benn quartier xam nga nit ki mënul toog sa kër amoo ndox mënoo toog sa kër amoo courant. munoo toog sa kër te bu ñu joxee ceeb ak dëwliñ amoo jën boo si def wala yàpp boo si def tey bu ñu jëloon loolu ñuy yàqee si ceeb beeg dëwliñ bi naan ay dépensé nañ lii si xaalis te loolu amu si jël xaalis boobu jox ko askan bi ñëw ñëw jox la ko yow tey ñu jox la benn 100000 bu la neexee doo jënd ceeb ak dëwliñ bu la neexee da jënd sa biscuit ak sa soow ndaxte loolu lay faj kii bu ko neexee dem jënd cereem ak meewam ndaxte loolu la bëgg bul ñu imposer si la nga xamante ni xamaguñu ko te tey bu ñu d'accord naa sax ñu ne dañuy def ceeb ak diwlin jox ko askanu Sénégal mais na fekk la président doon wax bu njëkk mu indiwaat ko tey mooy mbayum réew ceeb bañ ñuy dox la doon ceeb bi nga xam ni askanu Sénégal la ko bay tey ñu ngi def lu am tamit consommation locale consommation locale boobu tey maa ngi GNS di am information yu bëri si monde entier tey nee nañ lan nañu sol masque masque yooyu bañ nee nañ koy sol dañoo waroon appliquer waa Sénégal système mu Sénégal ndaxte dafa am tailleur yu fi sonn dem ba jàng mën seen liggéey amuñu ku ñu liggéeyal tey ça fait ñu ñaw seen i masque ñuy def masque yi nga xamante ni Sénégal la ko ñaw sol ko mais masque importé yi ñuy indil yëpp ku leen ni defuñu si ay intoxication loo xam ne bu ko africain solee mën na si feebar masque bu la yi ñuy yónnee yëpp jóge Europe Chine am na quelque chose bi si nekk boo xam ne dañ koy nëbb ah léegi ñun dañu fexe kon bu ñëwee dañuy jéem a tàgg taagal pour jéem ñu teg si yoon boo xamante ni dañu bëgg Afrique dem si kanam nañu fexe ba masque yooyu ñu ñuy imposé na doon suñu masque réew. tailleur yi koy ñaw am xaalis population bi jëndaat ko mu doonaat consommation locale demaat si population bi. masques yi dafa am nuñ koy programmé ba pare dafa am dafa am diire boo xam moom la a diire a di mais imagine nga gis bu ñuul kooku est loolu nekkul ne beneen feebar la koy yokkal parce que masque yi moom muy masque sagar yeeg masque yi ñu importé yeeg yëpp ci yam masque moom masque la rek te te pour pour protection rek. man Souleymane dama mos a takk masque te buñ ma ko proposé woon du ma ko def ndaxte su ma demee ba gisuma laa yor. te saa bu mu wàccee dama koy fóot ba mu set def si sama euh, omo hors de javel microbe bi si nekkoon yëpp day dee n'est-ce pas te tey lu rey microbe nekkul lu jafe ba si antibiotique sax boo koy naan mën na rey say microbe bi dugg sa yaram kooku ñëpp xam nañ ko jàng nañ bu ñu nee kon masque am na ñu koy sol trois heures de temps kon lu tax Sénégal ba ñu ñëwee indi masque yi di ko jaayaat te masque yooyu ñuy wax. buñ ñu ko joxee yow it bi ñu ñëw si dëkk bi ak boobu ñoo bokk niñ koy solee askan bi balaa nga leen di dugal si masque kon da nga leen di gën a yokk ñoom si feebarloo ndaxte xamaguñu masque nga wax leen sax ñu sol seen fulaar chaque trois heures de temps ñu fóot ko ci changé ko indi beneen moo leen gënal ndaxte masque bi boo ko sànnee tollooguñu foo xamante ni kii day sànni masque jëndiwaat masque 200 sànniwaat masque jëndiwaat masque 200 loolu nekkul eh, état eh, ñëpp ko mën. ma leen di xam ne yéen nga ànd ñu ci SBT Média ki ñu taxoon mu mel ni que ci li ngay Souli tey ñëw nañ fekk sa dëkk muy Grand ñuy yëkkati ñi nga xam si ñoom mooy mécaniciens yi ak cérétiers yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk occupé euh, waaw loolu dafa fekkoon mu doon loo xam ne dañ koy yàggoon xeex xeex nañ ko ba sonn te mosu fi jóg xam nga tey état deful loo xamante ni daf ko def pour peuple bi man gëm naa ni li ñuy yëkkati ñoom dañu si amaat beneen intérêt ndaxte parking bi boo koy wax espace bii nii espace réservé la pour Grand Médine waruñu si woon def lu dul ay jardin ay garab nit ñi toog di si féexlu tey boo demee monsieur le maire côté boole na le comme xam na ni Grand amuñu ay waxkat jël na ko jaay ko ñu fay tabax ay immeuble te pourtant c'est pas normal pour lan ban na monsieur maire Grand Médine jël na ko beneen côté bi di ko jaay ñu koy tabax pas normal espace réservé dafa baax si dëkk. Sénégal fan moo amee espace réservé espace réservé bi ñu amoon yëpp maire yi jaay nañ ko ah état gis ko waxu leen dara population bi dund bi di gën a xat li ëpp solo mooy fexe ba sa population nga jox leen benn éducation boo xamante ni yow boo génnee sax boo waxul sax dañuy kontaan jëfe li ngay waaj a wax te loolu du xaalis moo koy jox population dëggu moo koy jox population ñun dañoo amagul nguur gu dëggu li ñuy nëbb ëpp. li ñuy wax booy xool maa ngi koy wax si sama son wu politicien bi ma naan nañu askan bi itteel maa ngi la naan eh, politicien dëgg mi ngi koy wax lu dul dafa sàngu si biir suuf te bu sàngoo si biir suuf la mu bindoon loolu la ñuy génnee mooy tax dëgg bi feeñ mais politicien bi yeeg bi wàcc bi waaj a yeeg pour man ñoom ñëpp a yem dëgg kenn du si génneel. mais nag su li su li dëgg teewal dëgg amay ah, ah, dëgg ci olof ñu naan bu ñëpp yemoon am ñu gëdd seen cër politicien yëpp yemunu am na ñoo xam ne ba tey ñu ngi teewal dëgg comme ni ngay teewalee dëgg di su li dëgg. mais ñiy teewal dëgg ñu ngi leen di suulal comme man nañ may suulalee ala Cheikh Anta Diop politicien la woon moo inventé carbone 14 ba tey dans le monde entier amul ku fi mën a er-, inventé carbone 14 te pourtant ba mu jugee pour jël réew dañ ko naax saaxal suuxal ko suuxal boobu ñu koy suuxal moom la ñuy suuxalaatee ñeneen ñuy jéem a jug pour nekk si dëgg da ngay dem ba mujj gi doo xam kan mooy wax dëgg ak ku waxul dëgg ndaxte olof dafa waxaat wax ju am solo ñu baax ñi yàq nañ ñu boñ mi. mais généraliser chaque jour bo ko defee yaa ngi jum kon amul fu ñuy toll di généraliser. li nga xam ne mooy yëkkati bi nga xam ne décret bi euh, mu mel ne que euh, lu jaadu la lu lu rafet la ndax boo xoolee xar kanam bi ni ak sareet yi ak oto yi ni mu mel nii nekkul loo xam ne euh, xar kanam la bu rafet ci ci Grand Médine rawat na stade bi nga xam ne mooy stade Léopold Sédar Senghor. loolu moom dañ ko yàgg a ñaxtu ndaxte stade boo nga xamante ni nee nañ Sénégal benn stade bi moo fi baax. stade ba nga xamante ni boo fi doxee dix heures ñu agressé la kooku c'est pas normal stade boo xam ne mi ngi salté te xoolal stade bi ba mu tuddee amitié dafa rafet ñëpp doon fi ñëw bañ ko tuddee ndaanaan bu mel ni Léopold Sédar Senghor dafa salté te au contraire bañ ko tuddee ndaa euh, Léopold Sédar Senghor foofu lañ ko waroon gën a mën a toppatoowee stade ba muy soog a pare j'étais jeune maa ngi woon fii dafa amoon ay terrain basket am ñu fay footballé am côté bu ñuy handballé am côté bu ñuy féexloo guddi gi làmp yëpp di tàkk mais fii boo fi jaaree guddi dafa lëndëm benn lamp du tàkk bu fi président waree ñëw wala ministre ñu taal làmp yi kon ñoom président bi la ñu jox cër mais pas population Sénégal. kon su la déggee mooy kon su la déggee mooy insécurité bi moom neemeekoon nga si moom d'accord nga ne amoon na insécurité kon. waaw insécurité bu wér moo fi nekk te dafa nekkoon si système politique ndaxte politique bi la ko indi woon mooy ñoom xam nañ la fi am te mosuñu ñangu ñëw man ñaata yoon laay toog ay 2 heures du matin gis oto police taxaw fii wax ak booy yi ne dañ leen di yóbbu am na ñu def ak ñoom dem seen yoon bàyyi fi ah lu ko waral. kon mbokk yi nga xam ne yéen a ngi ànd ñu ci SBT Média ci seet soon ki nga xam ne moom moo di sulu dëgg teewal dëgg mais ban message nga am booy lancé jeexalee ko li nga xam ne mooy tàggoo ko mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi seetaan SBT Média. man li may lancé askanu na ku nekk am fulay bañ a gëm li ñuy wax système alimentaire ed alimentaire bi bu ko kenn nangu ndaxte aide alimentaire dëkk bi ko war a nangu muy dëkk bi nga xam ne dafa nekk ci guerre ba pauvreté fekk ko fa ñu nekkaguñu guñu ci guerre pauvreté fekk fi ñun dañ bi nga xam ne ministre bi nga xam ne moom mooy yor loolu noonu muy Mansour Faye di def conférence de presse am benn suñ confrère muy Babacar Fall nekk RFM posé ko benn ne ko boo ma ko xaatee ma porte la plainte bi nga déggloo nan la la def. ma tuuse lool lool lool lool lool ndaxte dèjà bu ñuy wax poli mooy li ma waxoon si émission bi ma Tunkara invité woon mooy yar moo grec la boo nee politique police politicien ñooñu ñoo war a njëkk a yaru kon ñooñu bu doon tey yaru nañ journaliste posé ko la nga xamante ni dafa juum war na mën a bàyyi sax ba mu dem mu woo ko nekk yu mel nii bul ko waxati defal lii ak lii ak lii mais publiquement nga koy wax ñëpp di ko dégg see parce que kooku moom daf ñoo yab ñun askan bi mais yabul journaliste bi man noonu laa ko jàppee. parce que Babacar Fall li ko wax dara nekku si dana ko dégg nañ marche bi ki ko jor sa xarit la mu ne ko boo ma ko waxatee ma porte la plainte. c'est parce que man su ma neexee ma jël marché international jënd ceeb. 500 sama xarit defal ma de décharge 500000 ñaata 1000 1000 1000 1000 francs ñoo fa dem. bu ko porte plainte xam na ni dana mujj fenn ndaxte moom ministre la mais bu dëkk bi nekkoon si yoon wax jooju moom amul droit porte plainte ko ndaxte journaliste dafa am droit def liggéeyam bu ko porte plainte moom moo ci waroon des moom ministre bi walla ñu summi ko. mais bu dëkk bi moo amagul yoon mooy li may wax kumba am nday la kumba amul nday da ngay bokk fii mën a neexle nga bañ fa bokk dootoo neexle ba dañ koy dund. boo nangee dégg nañ fi coowal nit dof euh, ak ñi nga xam si ñoom ñoo di ñoom ñoo di euh, ñi nekk si kaw mooy comme ñoom Fou Malade ak yooyu coowal yi bi nga ko déggee wét mu nekk ci wàllu rab nan nan la la def. ñoom nekk si kaw ndaxte nit dof xamante nañ bu baax Torino ba ma nekk ñëw na fa tëgg concert bu tëggee fii ma tëgg fii maa koy ëpp nit mën naa am daf ma gën a siiw Sénégal mais fee maa ko gën a siiw. fa la njëkkee soog a jógee foofu dem France kon xamante nañ pour man muy ñoom ñëpp ñi ngay wax ñi nekk si kaw ñoom ñëpp a yem xaalis moo leen dugal ak seen bopp dafa di nit dof dafa am côté bu mu leen xaw a tane tuuti rek waaye ñoom ñëpp a yem ku si nekk sa bopp ngay xeexal. Y'en a marre ba may wax ay système de politique la ñuy def dañ ko weddi woon ma ne du si mos a bokk tey dem nañ ba gis ni ñoom dañuy politique te man pareeguma pour politique. moo tax mënu ma jubóog ñoom mënu ma ànd ak ñoom booy xool duma dem seen concert sama yëfi bopp laay def. dans le média man maay publicité sama bopp samay concert maay xool ñu ma neex ma invité te ñoom du dem seen i yos te soxlawu ma sax ñu invité ma ndaxte man li may siiw sant naa ko yàlla maay tëgg Africa Reggae Revolution bi am itali damay toog fii publier ñëpp di jël italiens yi di jël samay son di ko tas si monde entier kon loolu maa ngi koy sante yàlla mais jàppal ni Sénégal ñi fi daan wax dëgg ñëpp jënd nañ leen ndaxte ñi fi daan wax dëgg xaaj bi gorewuñu te ku gore woon kenn du la jënd ana Tunkar mi doon xeexal Sénégal tey fa mu féete. ko ne xeexal Sénégal. kan dooley poosu le parti pouvoir gis nga boo nekkee royuwaay dafa am looy nangu am looy bañ bu la këf yóbbaale gis nga xaalis bu jëriñee daa fekk ay nit nekk fa boo demee dëkk boo xamante ni benn nit nekku fa nga yóbbu fa ay milliards. dëkk bi doon ay garab kese kese kese garab yooyu mooy ëpp njariñ xaalis bi ndaxte boo xiifee du xaalis bi ngay lekk si xobu garab yi ngay dagg daal di siy jëfandikoo lekk ba suur naan ndox bi pour mën a feex dem sa yoon kon xaalis amul njëriñ ñin ñi muuf ñin ñin ñin ñin ñi ngay jëflanteel ñoo am njariñ kon respecté nit ñi te xam ne nit a ëpp valeur leneen lu yàlla sàq suñu borom ba mu bindee ba pare dafa ne jaamu ah, jaamu yàlla yi mbindeef yi lay waxal mais mbindeef yi am xel te nite ñooñu lay waxal te ku am xel nite di nga xam ne xaalis ak nit ñëw ndaxte nit ay defar xaalis te xaalis ëpp euh, euh, nit a ëpp valeur xaalis mais tey Sénégal dañoo topp am-am bàyyi xam-xam te booy xool ki am xam-xam après mooy jëriñoo ki am am-am kon dañ jéem uti xam-xam te bàyyi am-am am-am bi boo yoree ay milliards benn yoon ngay ndékki benn yoon ngay añ benn yoon ngay reer. guddi bu jotee boo yoree 150 kër si benn kër ngay fanaan kon am-am bi fu muy feeñ après fexeel rafetal sa bopp am woy bu mel ni woyu Nelson Mandela ba nga xam ni ne monde entier ñëpp dañ lay waxal nga dund si dëgg ba dee nit ñi di la on di la rendre hommage di sa way dootul fay. mu mel ne corona bi def nga ci benn single comme ni ko ñëpp defee mais mu mel ne seen single yéen ñëpp yéen bokk même way boo xam ne yéen a ko yéen yéen a bokk même même texte boo xam ne moom ngeen waayee léew li nga waay bëgg nañ nga mosal ko Sénégal yi ndax gis nañ mooy mbekk internet du SBT Média man ni ma wayee ba tey du ma nangu ni moo bokk ak ni ñëpp wayee ndaxte booy xool man fi ma tëjee nee naa njiit dañ koy jox cër lim ñuy digal moom bum ñu lor kan moo tëjee foofu njiit dëgg la da nga koy jox cër mais jox la cër taxul ñu ragal la bala yow li ñuy dugal de li ñuy digal def ñuy lor booy xool ñi ngi ñuy commencé digal loo xam ne dañuy lor ndaxte boo demee ba naan nit dangay toog 6 heures si ngoon ba 7 heures kon nee leen tëdd leen seen kër ndaxte diggante kii gi yeewu 10 heures balaa muy egg ak télé yi ni mu xatee midi dina jot kon balaa muy liggéey 6 heures jot na kon mi ñuy digal lu ñuy lor c'est que dafa di thème bi daf si am solo. ki lay nii ñu mosal ñu ko tuuti rek ñu ñu ñu barkeeloo ko ñu ne nag su li dëgg tey nee naa la dëkk bi yëpp a def xaj am bëgg xàcc daal moom soo <laughs> waajee xam li am solo mooy naa la jëlal son bi tegal ko gars yi ñu déglu ko man samay son télé yi dañuy am problème mu teg ko ndax samay tem mais man xooluma télé xooluma DJ xooluma animateur télé bu la neexee bu ñuy teg samay son. man si média bi dinaa liggéey li ma mën a liggéey te xam naa ne ma koy jaaralee ba ñëpp jot si. tey Sénégal ku mel ni yow nga doon journaliste xaw la xamoo ma da ngaa wër ba daj si man nekkul maa la woo nekkul yaa ma woo pour ma neexal la ñooñu bu ñu amoon loolu ngay jéem a xeex journaliste yu mel ni yéen am. mais xaaju journaliste bi xam nga lu ñu fiy liggéeyal mooy son bi may waaj a génnee nii mooy lépp lu am Sénégal def nañ ko business nekkatul liggéey. liggéey boo laajte ñun la business ba si biir police bi ba si biir tribunal bi ba si biir gouvernement bi ba si biir bureau yi lépp business dañ ko commencé def nekkatul liggéey kon luy sa pro euh, sa profession mu ni la business journaliste bi pour mu teg la il faut nga neexal ko wala leneen journaliste pour mu invité la yow mi sonn bind ñoom ñoo la waroon jox paas invité la mais au contraire yow la ñuy jéem a bëgg nga jox leen xaalis ñu invité la ba pare lekkaale liñ leen di fay weer loolu dafa ñaaw askan boo demee booy dugg ci benn affaire da ngay doon patriote xam nga lan mooy patriote patriote mooy ki nga xamante ni dëkkam daf ko jaral lu ne gis nga tey États-Unis boo gisee ma faaleen Trump dafa doon patriote ndaxte jiitalul leen lu Amérique ndaxte il est américain ànd naa seeg moom. tey suñu président bu jiitalul woon lenn lu dul Sénégal damay ànd ak moom ndaxte damay xam ne kii il est balaa nga naan Afrique naan Europe njëkkal wax sa dëkk ba mu defaru ba pare. Chine 1934 ba deuxième guerre mondiale bi amee ñoom ñoo gënoon pauvre ci monde entier Mao ñëw indi benn système boo xamante ni dafa ne ñëpp dañuy tëju tolloo benn salaire bay dundee xooluñu benn lu américain am wala lu européen am. te xoolal tey loolu la ñu dund def ko seen xel ba tey Chine moo nekk première puissance mondiale kon Afrique moment bii nii ñu toll dafa jot Afrique pour dem ci kaw ci kanam ci kaw suñu gouvernement bi am fulla africain yi am fulla ñu bay dundee ndaxte matière première yi am yëpp Afrique lay jóge tey au lieu que ñuy jaay pétrole français war nañ mën a signé moom accord ba nga xamante ni dafay fexe ba formel ñu cinq sénégalais. ñu xam nan la ñuy exploiter pétrole nan la ñuy defaree pétrole brut mu ñëw doon dañuy njëriñ ñu proposer leen tant ton wala tant si si pétrole pour ñu mën nañu jàngal ñooñu nga xam ne ñooñu bu ñu jemee ba jàng ko ba mun ko dinañ ko mën a defal seen dëkk ñoom kese loolooy yoon. bu mu ne ko li ñu mënti waxtu jeex na SBT Média nanga nga gisee SBT Média ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def ci askan wi. waaw liggéey bi dama siy gën a kontaan di ñaaxaale. bépp réseau wala télé ñu def comme yéen di ngeen def ndaxte man tay dama ñëw rek tasanteeg yéen gis leen ngeen doon filmer ñu ni suli nga ne kii mooy suli mañ la waaw nga invité ma sa émission ma ñëw bu doon tey ñëpp noonu lañ koy doxalee dëgg dina feeñ Sénégal télé yi dem si kanam man damay fexe yeneen télé yi doon seen royuwaay loolu laa leen di ñaanal. ñu bàyyi la nga tàggu mbokki askano Grand Médine fi nga xam ne fi nga yeewoo fi nga dëkk. waaw waa Grand Médine dama leen di sant di leen gërëm ndaxte aw ma seen fay ndaxte dama nekk benn artist ci biir gox bi mais xoolee wu ñu ma artiste dañ ma xoolee seen doomu ndey moo tax lépp lu ma fi gis jaarul yoon daf may jaral ma xeex ko ma nit di tàggu askanu senegal di tàggu monde entier tey ñaaxaat suñu état naan leen nañu xam ni ils sont tous des africains. ils sont tous des sénégalais tey même bu ñu pertoon seen nguur bu ñu demee Europe dootuñu fa jëriñ lu bëri même bu ñu yoroon ay milliards liñ leen di xoolee mooy téye sénégalais kon nañu gëm seen bopp xam seen bopp xam seen dëkk fexe yëkkati seen dëkk du pour ñoom de ngir bu ñu deewee way boobu dem ba ci seen i sët noonu dañ ko war a defaree jërëjëf.